ak président Diomaye. waaye nag bëgg bëgg bëgg a nuyoon teg moom saafoon teg moom président Diomaye xam nga fu mu nekk ni wax dëgg yàlla euh, moom c'est le premier agent marketing ba pare. ndaanaan la de ah mu def ñetti abdu bu weex rek ñëw julli ci sa juma caméra RTS yi taxaw. Ah. nan waxante dëgg fu mu nekk nii nag euh, ñàkkul ne waa RTS daa gëj grande mosquée. <laughs> te bu gëjee grande mosquée loolu du yoon. Samb Aliou loolu du yoon. Hmm. waaw kon président Diomaye na dem seeti ko rek du dëkk na dem seeti ko àdduna am amul solo. Hmm. waaw comme moom mag la te noonu la ko gisee waaye leen de bëgg naa ko wax. <clears throat> diine ànd la ko caaxaan de. Hmm. te boo jiitee ab mbooloo da ngay fexe rafetal sa kàddu. ba bañ a wax loo xamante ne dañ la koy xeebe. xam nga président de la république Bassirou Diomaye Diakhar Faye dëgg la ñaam naam jullit la waaye ay murit rek faruñu ko di ay tijaan rek faruñu ko ay laayeen rek far faluñu ko mm-hmm. ay ñaseen rek faluñu ko itam waaye cana ba cana ba kese mm-hmm. ay catholique it dañ koo fal mm-hmm. c'est le président de tous les Sénégalais soit musulman ou pas musulman et donc en tant que dignitaire et guide religieux mais koo xamante ne yow diine l'islam moo la fi tax a jóg te kooku diine l'islam diine réconciliation la diine amour la diine paix la concorde donc euh, vraiment euh, diine àndalul ak politique mm-hmm. kuy politique moom da ngay wekki sa mbubu diine teg ne mm-hmm. politique li ngay politique du dëkk mm-hmm. waaw léegi nag papa comme loolu naqar na ko lool am problème jomaay xale la du dëkk gis na soxna xale la na dem seeti ko amul problème. léegi après les deux grands marabouts la nu ñuy def ak ñoom. deux grands marabouts ya. les deux grands marabouts. les euh, les deux grands sëriñ de Dakar. les deux grands sëriñ de Dakar. waaw bu jógee mu dem seeti les grands sëriñ de Dakar lébu yi nag. waaw bu paree légitimité rek la ñuy wax. déedéet mais est-ce que moom moom est-ce que moom lébu yee ko waxlu. loolu tamit laaj la euh, moom mu nekk lébu. <laughs> di wax waxi boppam ne veut pas ah, dire que lébu yoo ko wax loo da ngeen baax mais mu seeti waale les grands sëriñ de Dakar c'est que c'est moom imam lu mu war a comprendre mooy ne président ñàkkul yëg ci ñoom président li mu fekk ci réew mi moo ko ëpp doole te wax dëgg yàlla ku la fi bàyyi dem seeti dignité religieuse kooku seeti na sa kilifa. waaye ku seeti sa kilifa kay seeti na la. yéen li ngeen di wax du dëgg. kon loolu yëpp benn la da ngeen baax rek moo tax ngeen di wax léegi gis nga paa bi. moom tey da ngaa yëngu nag. ci élément bi la bokk. ah. nga yii yëpp ay élément système lañ mooy ñëw def sa chantage nit ki dellu gannaaw ngeen def na ngeen doon def ñoom xam nañ ne lan doon am mënatul am gis nga boo nekkee kilifa diine pa bi ñàkkul occasion boo xam ne mën na dem gis ci pet président de la république wax ko li ko métti mais pourquoi mu choisir ci biir nit ñi ci pénc mi taxaw di wax yenn yi te ni mu ko doon waxee kooku kenn du ko waxee président kenn du ko waxee président am na yoo xam ne bu amee quelque que soit nit ki rang bu mu mënti nekk il faut oser le dire li mu def noonu kilifa ku nekk kilifa diine du ko def ku maandu du ko def parce que gis nga kilifa kilifa la le président de la république Bassirou Diomaye fay kilifa la boo amee loo na xari solo sa daal dem ba pale demal ba pale bu demoon ñaan audience kenn du ko ko teree kenn du ko ko teree wala sax bi mu ñëwee julli yi avant ñuy dugg ci biir mosquée bi munoon na ko woo ñu toog waxtaan mu wax ko li koy wax tu penses que le fekk mu taxaw ci minbar bi wax ko saa daf ko def nii rek délibérément non non saa waay gis nga élément système bi dañoo bëri ci dëkk dañoo xam ni ñuy exercer chantage ci nit ñi. bala gi dina fa jaar. loolu laa la wax. lu tax mu moo gën a xam ne amoon na possibilité balaa ñoo dugg ci biir julli amoon na possibilité woo ko ci pet ne ko ah président man kat kontaanu ma ndax kat dem nga fii dem nga fii dem nga fii te ñëwoo ci ñun loolu waxi biir néeg la parce que ça ne concerne pas la population mais ci ban titre. non non je veux dire que même bu nekkul sax ci benn titre pour te dire que ça ne concerne pas la population. ah na ko mënoon na ko woo ci mënoon ah, na ko woo ci pet. ci jomaay jomaay ñëpp xër ci moom mënoon na ko woo ci pet non gis nga affaire bi du xër. Ah, affaire bi du xër gis nga kon bi <laughs> du système. Mm. c' est langage système dafa am. te loolu man xam nga. man bu fekkoon ne moom mais yow li ngay wax ni imam dina nga bu fekkoon ne moom yow xutba bii di ñëw na ma xutba bu fekkoon ne moom ah. amul possibilité pour gis le président de la république wax ko wax jooju sax man mun naa d' accord bu fekkoon ne da ko demander audience. mu bañ man mën naa d' accord. yow nit ki tëjalu la buntam bi mu ñëwee julli si foofu lu mu dee dee am ngeen cinq minutes boo xam ne yéen ñaar yéen nekk mais waxu ko parce que loolu diggante moom la ak président de la république wala diggante communauté bi mu représenté ak président de la république les sénégalais seen yoon nekku si mais nga taxaw ci kanamu minbar un président de la république. nga koy wax yenn wax yi. mais lan la ko wax en fait Samba ñun sénégalais yi. waaw ñoo ne président amul jot dem seeti ko. parce que mënula dem quand même. seeti ko au nom de mais mais mais ah, ah, au titre de même au titre de de imam de de grande de fa jullee ji tëb jumaa yëpp dem ji grande mosquée loolu. sànni suñu bu beneen imam taxawee fee ne ko lu tax doo jullee. waaw mais mais mais boobu ba au Sénégal. waaw mais mais. ñaata yoon la imam di xutba du gis président ci ginnaawam yow nga am privilège u jiite ju julli eh, korité président de la république jiite président de la république jiite. mais moom la moom la Bassirou Diomaye Diakhar Faye joxoon loxo pour mu jóg. wala waaw waaw waaw. mais c'est le même mais mais mais c'est le même. c'est le même nga am privilège nga def sa xutba ba pare président wax. mais santal suñu borom si cër boobu noonu nga am. mais effectivement. et que le président n'était pas obligé mu dem julli foofu noonu. même bu fekkee ni tradition lañ ko def. Hmm. il n'a pas l'obligation mu dem di julli jee ji grande mosquée. mais dama ne toog. mami du tamit mami ah! mami du ma moom biñ golfutee sa bureau lañ toog. wallaay bu fa amoon lu may wax te waxuma ko bu ñëwee ba fii toog di ma ko wax keroog laa koy ba parce que on a eu la possibilité. toog nañ cinq minutes. bi mais mais man mayaguma la loxo quand même. yaa ngi dégg mayaguma la loxo waaw mais dama ne la président ñëw na grande mosquée am na possibilité toog waxtaan ak moom wala sax biñ jullee ba pare sax mënoon na ko wane ko ah président kat. en tout cas mais le fekk nga taxaw naan ko waaw boobu ba tey gisuñ la romb nga fii dem këri diine yi te xamuloo ne fii mooy buntu bi ah. mais waaw fan mooy buntu bi. foofu ñoom foofu mooy buntu bi. Mm-hmm. xam nga yooyu kenn du ko président. ah gannaaw xam naa le président a été élu par 54 pour cent. de sénégalais. reste na respecté président respecté sénégalais yi. guddul de waaye day. xam nga def day xam naa ne bu fekkee ne bokk na ci diine yi day. waaw diine ji ñu war a xoolaat. alors rapidement ñu jeexal euh, ci. Euh, mais imam <laughs> imam xam naa dafa kii rek. dafa lan bëgg bëgg tuuti bës. waaw ah, mais xoolal nag bu koy bës na ko bësee feneen mais mu ko bësee ak suñu président. kat eh, seen président la wax dëgg yàlla ñëpp ku bëgg kat boo ko tuddee ñëpp lay tudd waaw mais xam nga boo bëggee siiw tooñal ko siiw wala yow xamoo adage boobu <laughs> loolu xam naa ko de <laughs> boo bëggee siiw rek laalal ko siiw boo laalee ko siiw rek di siiw en a ngi nii jàpp imam fii imam gauche imam droite baal imam imam dafa bëgg jumaay di ko seeti del seeti yow kii jumaay del seeti imam del dem dafa julli di euh, ah, doo ma may ma daaneel ci jumaay mu dem aussi ah yéen imaam kat foog ñu dem di di di di julli ji foofu ko nuyu di wax imaam ko këram ñuy waxtaan. loolu la ci euh, de la république. amul taa de moom bañul dafa amul taa li fekk ci moo ko moo ko moo ko xoj amul taa de imaam na comprendre loolu amul taa dëgg nañu may ñu régler waaw imaam nañu may ñu régler situation dëkk bi bu nu ko régler ba lépp toog ba affaire yi tension bi xaw a wàcc. Mhm. ba ñu xaw a avancer ci yenn projet yi après ñu seet ko. Euh, jarul mer soxlaw la yow juumaay la soxla <laughs> soxlaw la yow juumaay la soxla te man li tax ñu yaakaar ni juumaay gën a sedd Sonko lii def na ma problème quand même <laughs> véritablement mais véritablement Aliou Top merci de me l'expression euh. ñoom li tax ñu yaakaar ne jumaay nopp yëpp gii moo gën a sedd Ousmane Sonko def na ma problème xanaa xamuñu ne jumaay wax a bariwul de hmm. xale bu yaru la nag te den mooy tandiku def ak xale bu yaru hmm. xale bu yàqu de moytu di defandikook moom ndax bu lay def dara sax definu kersa la lay def waaye day métti <laughs> definu kersa bu métti la lay def ah <laughs> ñoom imaam yi nañ julli ñaan li Sénégal Sénégal am jaam dëgg li ñu jugee moo gën a métti te gën a tar te amoon nañ occasion wax dëgg ki fi jugee woon te defuñu ko te fii la leen fekk xam nga ni ngay def ba yëngal ma te bëgguma yëngu ndax imaam suñ papa la <laughs> imaam suñu papa la wax dëgg yàlla mag buur la daal mag lu mu def yàlla baal ko ko waaye. Mhm. li muy reproché sunu président bi am na président bi fi nekkoon dëbb réew mi ba mokk. Mhm. amoon na occasion à plusieurs reprises. wax ko yenn dëkk yi si jamono jooju également. mais waxoon na fi ne manifestation yooyu ku ci dee. mais loolu moo tax geste bi président Diomaye def ba mu koy may loxo muy jóg. ñenn ñi bu ma doon dërëm réer bu ma doon galasé. parce que ñi nga yaakaar ne ñooñu dëgg-dëgg ñoo ñàkk teggin ñooñu ñoo la jox orma ba mu mat sëkk. Diomaye mm-hmm. de mag ñi ko contrôle ñëpp d'accord nañu ak moom. ñi ko contrôle ñëpp mag ñëpp d'accord nañu ak moom. Mm-hmm. ndax Diomaye depuis qu'il laa li muy wane mooy yar ak teggin. Mm-hmm. te loolu mu ngi ko njëkkee ci cérémonie bi nga xamante ne fa la doon def investiture am. ba muy wàcc ca escalier ya dem li may loxo Aminata Mbengue Ndiaye. waaye di xët protocole yi di ko nuyu si. waaw jaaxal protocole bi. mu ne lay. Mm. wàcc. njab njab bu dëgër may ko loxo mu taxaw. ñu ne déet na waaye mu defaat ko ci le même imam. waaw imam diggante ko te tabaski lu fa xew ak loo fàtte. Hmm? suukaru koor yi waaw bu dee ah, suuka suukaru koor lañ dakk yu cinquante mille yi daan ñëw te ñëwagul. <laughs> Hmm. waaw loolu imam ñun tam mën nañ ko dise jox ko am problème. <laughs> mais nañu ñaanal réew mu jëm kanam te ñu bàyyi ko mu liggéey. bu yàggee ngeen fekk si ma ci li ma doon wax de. <laughs> waa système. <laughs> gis nga système bi. yéen xamu leen sax fi mu commencé.